première kaddu yi Lamine Camara yéen a koy njëkk a dégg ci Aladji Malick TV vidéo boo xam ni bu am solo la gone gi wax na ci ay jaar-jaaram wax na ci Sadio Mané wax ci yi gor dëgg ngi gars yi ndax kaddu yu mu seede ci ay moromam ñoo xam ni ñoo ko moom fuuf waaye nag mu bëgg a roy ci seeni tànk ñu diglu lamin Camara ci Aladji Malick TV te ñëwaat. raconter sama première sélection bi mooy ma jotee convocation bi c'était quelque chose boo xamante ne euh, bépp footballeur moom la ñu rêvé représenter sa équipe leen loo xamante ne c'est particulier daal émotion émotion bu loo xamante ne si formidable et maa ngi koy sant yàlla bu baax a baax parce que sama objectif loolu tam sama rêve la woon te euh, yàlla dogal na tey maa ngi fii et alhamdulilah mooy yaakaar naa fii lépp a ngi fii cadre bu nekk bi fii comme Sadio Mané Koulibaly et cetera donc ñun suñu liggéey bi mooy suñu li ñu war mooy ñëw topp si seen tànk gën a jàng parce que fu mu toll nii si foofu lañ toll jàng jàng te yaakaar naa lépp a ngi fii pour pour ñu mën a progresser donc ñun suñu xam-xam même moom la ñuy ñëw ajouté tuuti si groupe bi ajouté tamit si groupe bi et incha allah yaakaar dina ak ak vidéo groupe bi fi nekk incha allah yaakaar naa dina jot bon vidéo groupe bi moom c'est c'est parce que ngay toog si télé di leen seetaan nga si nga seetaan ñoom Koulibaly ñoom Sadio Mané tey nga ñëw toog seen kanam ñi ñii foo ak yow comme. ay nit ñi simple lañ ko en fait dañoo wàccee seen bopp macha allah tey tey may doon toog si table bi tamit mais Koulibaly si boppam moo ñëw di xam di ma jéem wax loolu nga xam ni fii esprit du groupe bi fi nekk si moom moom mooy doole équipe bi daal en fait donc euh, en ce moment le groupe vit bien alhamdulilah c'est allah